413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ nee góor ngóoraa tax. moom Serigne Babacar Sy Mansour bi mu toogee ci xilaafa gi ba léegi li ko mës a yitteel bokk na ci yeggali liggéey jumaa ji di jumaa wu loolu nag mi ngi ko gën a jëmmal le 14 septembre 2020 gannaaw bi ñu fàttaliku ñaar fukki at ak ñett bi maam Abdoul Aziz Sy Dabakh wàccee liggéey bés boobee ca la woote ngir képp koo xamante ne taalibe nga wala sax ngay ab jullit dugal sa loxo sa poos ngir ñu yeggali liggéeyu jumaay ñeel Tiwaawan loole nag mu mel ni mboolem jullit dégg nga boobu woote moo waral naka ëllëg sa rek rajo bi di RFM di xamle ne lu toll ci ñeenti milliards dajale nañ ko ngir yembal liggéeyu jumaa yi Tiwaawan di mbir moo xamante ne ñëpp ñoo ci ànd ak mbégte bu ñu fàttalikoo ñi nga xamante ne ñoo di waa Touba dalee ko ci xalif général bi di Serigne Mountakha Bachirou Mbacké moom nag daal nay joxe lu toll ci cent millions ngir ñu yeggale liggéeyu jumaa yi Tiwaawan di loo xamante ne ñëpp a ko rafetlu di firndeel tamit ànd bu rafet bi am ci diggante tuuba ak Tiwaawan yemul foofu bëri na ay nit ñoo xamante ne kenn mënu leen a lim dugal nañu seeni loxo liggéey bi ñu war a Tiwaawan taxaw na ab diir bu yàgg kii di Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh def na ci ay jéego bi mu fi jógee kii di Serigne Mansour si daal di koy wuutu waaye ba tey ñu nemmeeku ne amoon na lu des Serigne Babacar Sy Mansour nag taxawaay bii mu ci taxaw mi ngi firndeel ne daanaka li ci des bareetul ba tax na boo xoolee sax maquette yi ñi ngi daal di commencé circuler ci internet bi ñëpp di ci teg seen bët mu doon jumaa joo xamante ne bu yeggee ci jàmm ak salaam dana bokk ci yi gën a rafet ci Afrique waaye rek waaye tamit ci àddina bi ndax ndamal lislaam lay doon waaye tamit ndamal diine lay doon fii ci senegaal dina wane ne jon jullit yi joxante nañ loxo bu baax a baax kii di Serigne Mansour Sy Djamil ni kiy démb fësal na ci page Facebook am nataal yu rafet yi nga xamante ne jumaa ji bu yeggee jàmm ak salaam moom la ñuy am fële ca Tiwaawan bi ko fësalee mi ngi xam ne ne dara rafetul ba jomb kii di Alaaji Malick Sy kon ñi ñaan yàlla mu yegg ci jàmm ak salaam ba jullitu àddina bi yëpp dalloo ko ci jàmm ak salaam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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax